aywa gëstu bi maa ngi leen koy wax niñ ko euh, doon annoncé ci première partie bi ak njëlbeenu deuxième partie bi mooy Ibou Diouf dafa def taxaw seetlu ci wàllum littérature fii ci Sénégal ku nekk xam na ne littérature dafa yàgg am taxawaay bu dëgër at yu mujj yi gisoon nañu euh, ne euh, mbind mi dafa xawoon a sooxe tuuti ana lan moo ko waraloon lu ci mën a am dafa mel ni def nañu ay jooyante jooyanti pardon parce que dañoo gis ne bilan bi ñu def ci atum 2023 bilan bu am yaakaar la ñu ànd ci ci gëstu bi dellu siwaat léegi at bi ñu génn di 2023 taxawaay bi nga xamante ne bindikat yi amoon nañ ko ci wàllu téere fës na lool ñi nga xamante ne ñooy moolkat yi tamit seen taxawaay ñu ngi ko doon rafetlu njeexital bi nag mooy bëri na ay téere yoo xamante ne jotoon nañ ci génne ci at moomee. atum ren bi nag euh, gis nañ ni at la boo xamante ni bu bu bu mucc ayib la. parce que am nañ ci ay prix yu bëri yoo xamante ni jox nañu ko ay écrivain yi nga xamante ne suñu ay naataangoo lañu. kon gis nañ ne at la boo xamante ni ñu ngi ciy sant yàlla bu baax parce que littérature sénégalaise euh, fës na ci bu baax ci littérature monde bi. mën nañoo wax ni que euh, année deux mille vingt bi nekk na année boo xam ne auteurs yi taalif nañu euh, ñun éditeurs yi muul nañu. waaw wàññi na lu mu tuuti tuuti ñaari téeméer ak ñaar fukki téere yoo xam ne. génne nañ ko si suñu catalogue bi te du ay téere yoo xam ne dañu ko génne rek euh, nii nii téere la yoo xam ne yenn ci téere yoo am nañu ay prix. ndax euh, génne nañu téere yu bëree bëri te euh, yiñ ci génnee moolin bi rafet na baax na wax dëgg yàlla taaru na ba pare liñ ci bind am na solo ndax téere loolu la niñ ko moolee defukaay bi ak li ñuy def ci biir. ñu ne nag genre littéraire yi bëri na te wuute. ku ci nekk fa nga gën a mën a loolee di firndeel li nga xamante ne mooy tolluwaayu littérature fii ci Sénégal. Euh, ak atelier d'écriture yi nga xamante ne dañu koy def pour euh, bindkat yi gën a xereñ ak euh, renforcement de capacité yi mooy yokk mën-mën yi nga xamante ne ñi ngi koy organiser ak taxaw bi nga xamante ne ñi nga xam ne jiitu nañ ci wàllu mbind ñi ngi koy taxawu ñi nga xamante ni ñoo mujjee ñëw. ambassadeurs yi itam gis nañ ni que année deux mille vingt bi ñu bari ci ñoom génnee nañu ay téere mën naa leen lii limal ambassadeur euh, Diop bu Bruxelles ambassadeur Kulisek fale ci euh, Genève wala ñu jël ambassadeur Amadou Diop wala ñu jël ambassadeur Babacar Carlos mbay ñooñu ñëpp. ci 2023 bi la ñu génnee seeni téere ci loole nag ñu ne li ñu duppee éducation wala promotion à la lecture da ci am solo lool moo waral ñoom sax ñu gis ne faw ñu gën a baral liggéey bi ci boobu la fan dañuy dolli di gërëm état bi jaarale ko ci ministère de la culture et du patrimoine historique nga xam ni Aliou Sow moo ko jiite euh, nga xam ni ah am na euh, loo xam ni dañ ko jagleel ñiy mool téere mu jaati direction du livre et de la lecture. li ma jàpp ni que moom mooy élément bu njëkk bu ñu war a bàyyi xel moom mooy ni que bari woon nañ ci ñoom yoo xam ne am amoon nañu ay manuscrits mënuñu ko woon génne. waaye léegi éditeur yaa ngi fi ñi ngi gën a professionnel te eh, ñi ngi gën a bëri itam ci Sénégal fii ba tax na ñooñu génnee dinañu génne téere yi buñ leen ko joxee toftal ci nag taxawaay bi nga xamante ne nguuru Sénégal am na ko jaarale ko ci fonds à l'édition maanaam koppar bi ñu teg ngir gën a doole ñi ñu mel waaw loolu wax la rek xale yi ñu ngi lire parce que xale yi ñu ngi lire li nga xamante ni moom moo leen intéressé parce que nit ku nekk li la intéressé moom ngay lire déjà boo ñëwee ci librairie sooy jënd du livre yëpp ngay jënd da ngay xool li nga xamante ni sa centre d'intérêt fa la nekk li la yitteel moom ngay jënd lire ko kon xale yi ñu ngi lire li leen intéressé mooy ñun ñi suñu bopp di seeni waajur ñuy lire xale yi bu ñu gisee ñu yor yi di liir ñoom itam mënuñoo def lu du liir parce que xale dafa mën a toppandoo te ki mu njëkk a toppandoo mooy waajuram moo xam waajuram bu jigéen wala di waajuram bu góor ne ñu bàyyi di wax xale yi ne ñuy liir te ñun duñ xale yi duñu gis ñor ay livre ne ñu fexe livre yi ne ci kër yi itam livre yi bu duggee ci kër yi bàyyi leen leen bu leen wax xale yi ne ñu liir xale yi bu ñu jotee daañu ci liir li ci tege moom mooy aussi ñu gën a ñaax nguur gi tam ñu gën a dolli bibliothèque yi nga xam ne moom moo war a nekk ci école yi wala war a nekk ci quartier yi nga xam ne livre yi bu fa teewee xale yi mënu ñoo def lu dul dem lire. li ñu mën a jàpp ci production littéraire bu Sénégal atum 2023 mooy ay jéego yu bëri jotoon nañ ko ci amal taxawaay bi ñuy rafetlu ci auteurs yi ak professionnalisme bi nga xamante ne maison d'édition yi ñu ngi koy am boo ci toftalee loolu nag ñu gis ne bëri nay doomu réew mi. ñuy yëngu ci wàllu mbind yu ci am ay raaya ràññee leen fépp moo xam fii ci réew mi wala ci réew lu rekk di firndeel seen taxawaay. aywa ñu jaajëfalaat euh, bu baax a baax Ibou ci taxaw seetlu bi nga defoon ci wàllum euh, mbind mi gis nañu euh, nga dem ci ay maison d'édition waaye itam waxtaan ak éditeurs yi mais li ñu gis nag moom mooy. Euh, contrairement à ce que beaucoup pensent euh, xale yi euh, quand même ñu ngi ñu ngi lire dañuy lire leen intéressé naam lecture bu njëkk ba. Mhm. ak bii bokkatul. wuute na. Mhm. mais gone yaa ngi lire. waaw et puis ñoom soxna Fatick comme ni ko waxee am nañ yeneen yeneen jumtuwaay. Mhm. par exemple yor nañu seen tablette. yor nañu iPad ak li ni yoo xamante ne wala sax seen ordinateur yoo xam ne. Euh, mën nañ ci liir da ngay gis sax am na ay mag yu bëri yoo xamante ne ils mhm. préfèrent le fichier numérique mhm. au livre physique donc euh, yooyu yëpp moo waral ñu ne donc euh, ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàll bi surtout les éditeurs war nañu mën a xalaat ci yeneen voies et mhm. fexe également ba xam xale yi lan moo leen gën a intéressé au-delà des bandes dessinées ñu mën leen ko di ko proposer leneen lañ ciy toftal mooy mouvance bi ñu seetlu woon fin Covid bi nga xam ñu bëri Euh, ci lañ la lu woon amoon mm. temps pour bind dafa mel ni euh, njeexital li mooy li ci topp jële ko deux mille vingt deux deux mille bi ñu génn. Mm. production littéraire bi da ci mm. fës bu baax a baax. Mm-hmm. parce que bu ñu jëlee maison d' édition bu mel ni euh, bon pour ne pas fair de la. publicité donc mel ni Harmattan par exemple nee na. Mm-hmm. ci atum deux mille vingt trois au minimum am nañ plus de deux cent et quelques ouvrages yoo xamante ne. publier nañ ko. donc euh, te gis nañ floraison de maison d' yi am. côté boobu tamit Sénégal def na ci ay jéegu yu bëree bëri. beaucoup de d' anciens écrivains de renom tey gis nañ ñu am seen maison d' édition bopp. loolu tamit dafa may ñi nga xamante ne. yoroon nañ seen manuscrit pendant des années. amuñu woon ni ñu mën a def pour publier ko ñu dem vers ces maisons et puis mën a def seen production ni mu waree donc euh, leneen lu koy dooleel mooy mm. koppar bi nga xamante ne. état du Sénégal jaarale ko si direction du livre muy fonds à l'édition tax na également production bi gën a yomb parce que mm-hmm. léegi il suffit juste nga dem fa ñu wax la ni nga war a def pour ñu soutenir la mm-hmm. pour nga mën a euh, produire sa ouvrage parce mm-hmm. que ñu bëri euh, obstacle bi ñu doon am mooy moyens yi ngi ciy def pour dem ci éditeur mu defaral la livre waaye léegi su fekkente ne peut-être xam nga yoon gi boo fa demee rek moom mën lañ la jox mhm. li nga xamante ne mooy yoon bi boo fa mhm. awee xëy na nga mën a produire sa ouvrage mhm. leneen li mooy les jeunes gis nañ engouement bi donc salon du livre bi passé gis nañ ci benn tuutànk boo xam ne fukki at ak juróom la la am bind téere du ñàkk fii ak i fan ñu dégtal leen ko parce que liggéey bu mucc ayib la également côté encadrement bi ak atelier yi nga xamante ne aussi ñu ngi koy amal ci wàll wi tax na vraiment ba on a beaucoup d'ouvrages mais de mm-hmm. qualité mm-hmm. parce que nag euh, li euh, Marouba Fall wax nee na mm-hmm. livre da ci am solo li nga xamante ne mooy couverture bi parce que booy wax aspect marketing bi aussi da ci bokk da koy gis mu rafet tu as envie nga jënd ko mais boo ko yëree li ci am solo également mooy la qualité du style la qualité de de la production aussi may na Sénégal tey vraiment ci biti réew ñu gën ñu jox cër. c'est vrai que les anciens ont beaucoup fait à l'image de de Paul Senghor ñoom mm-hmm. Abdoulaye Sadji Mariam Ba et autres mm-hmm. mais la jeune génération la wala génération yi nga xamante ne ñoo ñetti diggante bi aussi. Euh, def nañ ci liggéey bu mucc ayib. ñu mm-hmm. ci féliciter également. Euh, tous les éditeurs. Mhm. mais également l'association des des des écrivains du Sénégal aussi. Mhm. ci taxaw bi ak initiative yi ñu am. Mhm. gis na récemment Fesnac ren bi dañ ko boole ak salon di livre. donc euh, ça a été une réussite. vraiment képp kuy safoo téere boo fa ñëwee di nga gis loo xamante ne mën nga ci ndugg. et puis ñu gën a ñaax xale yi. te nag nee nañ. livre yi ñu mbañ di ko tere xale yi. Mhm. donc souvent da ngay am bibliothèque bu rafet. Ah. mais xale yi buñ ko laalee naka baxi baxi. alors ah xale yi am na ñoo xam ne xotti de. <laughs> livre yi dañ koy xotti bu mu egg. <laughs> waaw loolu am na ci loolu mooy bi loolu mooy <laughs> inconvénient bi. dañuy mhm. dañ leen tàggat ci liir bi. Mhm. et puis c' est toujours euh, vraiment bénéfique. parce que li gars di wax rek c' est une nourriture ça et lecture bu njëkk ba ak bi bokkul man euh, je sais pas peut-être que je suis vieux que ibbi sama ordinateur di lire parce que je préfère quand même avoir le livre voilà entre mes mm-hmm. nga xam ne di nga mën a un peu dafa am benn am na benn connexion buy am exactement ak ak livre bi quoi mm-hmm. parce que le livre est un conseil éloquent et mm-hmm. calme euh, te lecture dafa baax ci ci ci ci xale euh, man bu ma daan lire dama yor sama crayon teg suma wet moo bu ma dajeel bu ma ko xamul souligner ko. Mhm. su ma paree dem seet ko ci dictionnaire. su ma demee école tam laaj ko sama professeur. Mhm. suñu bibliothèque scolaire livre bu ma euh, lire ba pare. Mhm. delloo ko jëlaat beneen. c'est c'est ça il faut beaucoup mhm. xale yi bu ngeen bëggee dégg tubaab. Mhm. c'est important c'est important merci beaucoup Ibou Diouf euh, ci taxaw seetlu bi mënu woon ñàkk euh, ci sa gëstu boobu ñu lay jaajëfal bu baax quand ci sa euh, njàppandal et merci également pour cet amour ci littérature culture et cetera ñu dem tàmbali léegi ci jàngat bi bu ñu daanelee publicité bi ñu ànd ak Souleymane.